saa su ngeen di wërati xibaar bu gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru Njaay. A'uuzu billaahi wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima murit bi nga la maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ak ñoñam ñaati murit bi nga la maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ak ñoñam ñaati du man di tey ci wax leen gaa bamba ya ndax ñoo ñaama doy ñooy samay roy teef fi tuubaate xam seeni jaar-jaar te koy xamlee di yoon wi ma saf def naa ko aw sas fi tuubaa man basiirooti yàlla ma def géwalub seex bàmba ak ña ko dar may xool ko cay dalu sas tey bay ma kañ kooti way naa seex bàmba ak doomam ya tey ma mébët ne ca seex sa ku baaxoon way ko ngeen xamati te jooja sax deful kuñ réere naa ku mu doon turam wasiiw na fi dunyaa dun ko deeyaate ak bokk xam na ko lislaam xam ko yoon wi itam xam nañ sëriñ dëru ngir pasteef ca fam féete jàmbaar la as gor la tey muslim jullit bu dëggal daarul asan njaay murit saadix la maa waxati. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa yàllaa ko tànnal mu bëgg. siyaara bu baax mbokki jullit yëpp di leen nuyu bu baax a baax te di leen jégalu di lu itam initiative bu rafet bi waaye itam di sant mbooleem mbokk nga xam ne ñoom la ñu bokk liggéey bi yëpp mbokki jamaatu ahibaay si asan yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di ziare itam sëriñ Abdul Xaadir mi yàlla dogal mu uuf njabootu sëriñ Daaru Xasan gi. waaye naka noonu itam di nuyu ay jëwriñam yëpp tey mu mel ne ñu ngi ni taxaw ci buntu ko sëñ Ibrahima Jëmm bi nga xam ne nga xam ne ñoo nekk suñu kanam yëpp ñoo ànd ak mbooleem wax na sax mbooleem fédération jamaatu ahibay si Hassane waaye rawat na section bu Touba mbooleem yi nga xam ne ñu composé jamaa bi ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun waa ci liggéey bi ndax liggéey bi day wane na rek nekkul ne liggéey bi social la donte moo ne waaye communication mi ngi fi social mi ngi fi organisation mi ngi fi waa culture ñi ngi fi ñëpp ñoo ngi fi ba ci administration kon day wane na rek liggéey bi liggéey Serigne Hassan la waaye ñekkul ne commission bu ci nekk am na bànqaas boo xam moom la jiite xëy na doom bi yàlla dogal na depuis ay at ngi nii ko def boo xoolee ci at yi jiitu ya ñu ngi ko daa ji yàlla dogal itam ñu nekkaat ci waajtaay woo ngir di ko amal waaye ci amale woon amal objectif bi nga xam ne moom la ci commission bi am amul doonu lenn loo xam ne lu dul gis ne ah, social kat ab la ci biir kuréel jamaatu ay bàyyi si ansana waaye taxawaay yoo xam moo ko ci war moor koo def waaye doom bi ñu gis na itam lu yàlla la lu rafet la surtout bu ñu duggee ci koor ah ñu taxawu nit ñi nit ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu ne ci biir kër gi te yittewoo ko ak ñi nga xam ne ñoo ci biti kër gi te suñu borom dogal itam ñu am ah, loo xam ne yittewoo nañu ko yaakaar kër gi mooy tax ñu dajale li ñu man ak liñ li am ak li ñu amut li ñu yor lépp ñu dajale ko muy xeetu yére muy ah, dund yooyu yëpp ñu dajale ko ba ci xeetu glace yooyu yëpp mi ngi fi ngir ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ne ah bu ah, ndax gis nañu sax kay maanaam ki am amul kenn koo xam ne yittewoo ko ñëpp a ko yittewoo waaye tàggee bu ne am na jàppal diw moo tax ñu bëgg dem ci wetu dëkk bi gis na kat ay mbokki taalibe nga fa ñoo xam ne sëriñ bi rek lañ yaakaar ah ñu jox leen ko waaye itam jox gën koy jox nikkul ne dañ leen ko jox ngir tane leen ci dara déedéet dañ leen ko jox xam ne kat lii lu ñu bokk la te mun ñu ko mun ñu ko séddoo muy dimbalante ndax suñu borom moo ko njëkk sant moo tax ñu di ko ah, nag am ci ab taxawaay boo xam taxawaay bu ràññeeku ràññeeku la ci biir jamaaxa bi moo tax ñu ànd ak mbooleem jëwri ñi nga xam ñoom la àndal ñëpp ci biir liggéey boobu ba tax na def nañ ko daawaati jéeg def nañ ko daaw ñu ngi koy amalaat ren te fas yéene nañu amale at yi nga xam ne moo moo ngi sunu ginnaaw yëpp ngir ñu xam ne daal don bi nga xam ne moom la ñu def ah, don bu am am solo la xëy na euh, lu lu lu lu lu kii ci ay bët la waaye lu am am solo la ci euh, yitte def gi nga xam moom la ñu ko def ngir taxawu nit ñi ci dimbali leen ndax dañoo jàpp ne sëñ Darou Hassane sooy tasu àdduna bépp la ndax dañoo jàpp ne képp koo xam ne ku ñu war a dimbali wala ku ñu war a taxaw la jàpp na ne jamaatu Ahibahil Cheikh Hassane moo ko war a def waaye ci biir jamaatu Ahibahil Cheikh Hassane jàpp na ne ay commission la ay commission yoo xam ne yu séddalikoo la ay commission si yaa am ci ab taxawaay boo xam ne muy li nga xam ne moom lay taxaw ci ay nit yoo xam ne ñoom la yàlla dogal la xëy na ñu war leen cee taxaw dimbali leen ci loolu daal mooy objectif bi nga xam ne sëñ Moussa moom lañu am tey waaw loolu xëy na message bi nga xam ne moom lañ ciy jàllale mooy nit ñi ñu war a xam ne lii ñuy def nii lii ñuy def nii li ñuy def ñoo xam ne ñëpp lañ koy defal kon képp koo xam ne bëgg nga lu baax rek jàpp nga ne sa alal war na cee mën a dem ndax dimbilante la te dimbilante a santaane kon ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dogal ñu ko def waaye ñi nga xam ne ñoom la suñu borom dogal xëy na seen alal agsi gu a baax te kenn ku ne bis mën na ñëw nga nga yittewoo ko moo xam muy man moo xam muy sama mbokk moo xam muy keneen ku mën a doon te ñun koy jox ñëpp ay julliti yàlla lañ ay mbokk lañ ay mbokk diine lañ ay mbokk yu yaakaar sëñ Tuubaa lañ ñu yaakaar kër sëñ Daaru Asan kon moo tax ñu ngi lancé appel ñëpp ñu xam ne ko buñ ko na dimbal te dimbal moom ah, ku nekk xam na ne maanaam kenn ku nekk ci ñoom bu gisee moromam ah, ndimbal war ci moom war na ko mën a taxaw war na ko mën a dimbali moo tax it ñu boole li ñu am ak li ñu amut li ñu man ak li ñu suñ doole ak suñ kattan lépp boole ko mooy moo mooy wane mooy wane lii nga xam ne moom nga gis nii ñu dem ci ñi nga xam ñoom la yàlla dogal ko ñu jox leen ko kon ñu ngi sant nga xam ñoom la ñu àndal ci ni ma ko tuddewu léegi ci njëlbeen gi commission yi nga xam ñoom la yàlla dogal ñu ànd ak ñoom du jar ñuy tudd benn commission di bàyyi ci des waaye mbooleem jamaatu ay baay Cheikh Hassane la ñuy wax ñoom ñëpp ñëw nañ ànd ak ñun liggéey bi muy liggéey boo xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi tey di leen di nuyu nuyoo islaam te mu di asalaamaaleykum wa rahmatullah lu jotal nuyoo bi nag ci njabootu sëriñ Darou Assane radiallahu anhu teg ko ci loxoom sëñ Abdou Xaadar mi ko fi nekkal di ñaan son borom mottali yéeneem defal ko tawfiix ju yaatu ak sutura te defal ko ay rakkam ak mboolem taalibe ji aju ci moom ñëpp di rafetlu nag liggéey bu tedd bu sell bi yoo xam ne xool sedd na ci xel dal na ci yaakaar dolli na ci yëg nañ ci it ak yokk ndax naka jekk noo ko daan ànd waaye la amoon daaw jéeg am daaw am ren wute nan loolu nag mooy eh, li sëñ Tuubaa son borom may sëriñ bi moo ci feeñ lam la waxoon samay mbir day dem kanam waaye du del ginnaaw saa su nañu di teg suñ bët eh, firndeel na ne coono ba doon son moom sëriñ bi son borom nangu nag ko ndax lii nu def nii ginnaaw bu yàlla jàlle jëmmi sëriñ Tuubaa képp tax ndax ay dongam ay soppeem ñu ko yaakaar a dajale seen alal seen doole seenu ñaq joxaat ko seen mbokk yi mbokkal sëñ Tuubaa loola ñoo ko def sëñ Tuubaa tax nu def ko ak sëñ Darou Assane mi seen bunt noo ngi ñaan yàlla nag ci kattanu yàlla ak yonente bi baaxul sëñ Tuubaa ak sëñ lépp lu ci waay def mu néew mu bari son borom nangu la ko te laqal la ko fa yàq yegul te bu ne it noonu ñu ko joxe woon nu yëg ak yokk ba yëkkatiwaat lu ëpp la joxe woon joxewaat ko te ci ki ñu koy jox. sun borom gërëm ko waaye ñun ko joxit seen xol bu sedd boobee sun borom sukkandiku ja ba fajal sun aja sahiran wa batinan nu yëg ak yokk sahir yok yëg ko ci batin sun borom yëkkati nu defal nu teex ak àdduna goog fa fajal aja sahiran wa batinan yom na ci liggéey bi yalla nañ ko ci yalla defal ñaan nak sun kilifa yi nga xamne non ci sun kanam moy seigne Abdou Khadir mo ma tuddoon leg ak nañ ji Cheikh Mamadou Moustapha ak seigne Ibrahima mi nga xamne mom la yalla mu yor kaddu gi ak mboolem ñeen seigne de sun borom tëbbu len katan motli seen yene talibi yi nga xam no ci nam na bi nag ñoom sëriñ bi gisal na len bopam seenu koy serigne be ko yor noo ngi ñaan ci baxuk serigne Tuubaa li ni ci sonn di guddi ci sonn beccek sun borom fekk len seen aajo jën am jep ak seen yitte am jep sun borom fekk leen ci ak di barikat Seexil khadim barke serigne Daaru Asan wa alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa loolu mom dafa doonte ne son borom dafa xarale xarale bu toll ne ab jaam fu mu ko toll rek mu toll foofa ah, def naa daaw yëg naa ak yokk weesuut ab soññee loola koo def rek moom yaay soññ sa bopp rawatina li nga xam ne danga koy daal def fa daar daar ñu faj la ko ñu faj la ko ca daar daar kooku moom ku ca nekkit yaa cay soññ sa bopp bu sam bu fekkee jëfandikoo nga ne sam xel ci yëng na la nga defoon daaw yëg nga ci ak yokk loolu mom du jartu ñu leen soñ ñi ñi soñ ke moy ñi defagut waaw ñi defagut ta am yéene def wala ñu yak yek mbir mi nok leen ko yegal kon ñoom ñu duggal ci seen loxo def ci definu kawi njort non dal mom mo ci samay kàddu jërëjëf alaykum salaam wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin wa salam ala rasulillah alaykum wa rahmatullah yi julli di mbokk talibey rawati na yeen wa kër Serigne daire jamaatu ahibaayi sel Assane mi nga xamee ne section Touba ci njiital Serigne Khadim Ndiaye al imam waaye wàcc ci commission sociale jawriñ ji di Serigne Fallou Seck sëñ Fallou Ndiaye euh, ñu amaloon ab liggéey boo xamee ne dafa jëm ci ay ndimbalante commission sociale porte liggéey boobu àndu ceeg mboolem commission yi nga xamee ne ñoo nekk ci section jamaatu ay Baye Selassane bu Touba. andi ci bu baax ci liggéey bo ay ay ndimbalante yoo xamee ne dañ ko jëmale woon ci ay yére ay glace kasaalika yu yu demee noonu rek ci ay ndimbalante yoo xam ne dañ ko jëmale ci mbokk mbokki talibé yi muy ab liggéey boo xam ne bu am solo la euh, doon ci soññee jamono yi yépp xëy na ñetti at sax ci ren 2021 lañ ko tàmbalee yaakaar na wala 22 tey la ñetti yoon yuñ ko defee ñu gis ci ay avancement yu baax a baax yu yu am solo gis ne it li ñuy def lu am solo la amaana nit ñi soxla nañ ko ndax nit ñi soxla nañ euh, ku leen jàppale euh, kon daayira jamaatu ay bas Cheikh Alassane mi ngi amal ay yëngatu yu am solo ci ndimbali membre yi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi mu ngi ciy def kemt laayal kàttanam kon loolu ñu xam ko bu baax a baax fépp foo xam ne ndimbal yooyu it ñi ngi koy gis ci image yi wala euh, di ko di ko dégg te éggu fa nan jàpp ne Euh, xalanku moo mënta daj fépp waaye fu ci eggut am na yéene liggéey bi egg fa wala ndimbalante boobu egg ci commission egg ci yeneen i euh, nit ñoo xam ne amaana soxla nañ ko te egg eggagun ci ñoom. Euh, mboolem commission yëpp xëy na boo boo tàmbalee lim sax amaana am ñoo fàtte te amaana ñi nga fàtte sax ñoom nga gënoon a bëgg ñoom nga gënoon a bëgg a jiital ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax te xam ne sant bu baax a baax gërëm nañ waaye liñ ciy def lépp yàlla nañ ci daje ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala ndax moom rek moo ci am solo. ñu daje ceeg moom suñu borom dencal ñu ko fu yàq eggut fa nga xam ne foofu la ñuy soxlaa jëf adduna moom xëy na dañu def def ngir laneen lu fi feeñit xëy na da dafee feeñ waaye fi ñu soxlaa suñu jëf ji nga xam ne moom la ñu jëfal ngir yàlla yàlla ak euh, Serigne Darou Assane muy ëllëg yamal xaam lañ ko soxla nag foofa nag fa nga xamee ne mooy yamal gisaay foofu lañ ko fay euh, soxla ñu fay ñu ko fa kon yàlla na suñu borom dencal ñu foo xam ne yàq du fa yegg foo xam ne mënatu dootuñu def lu ko yàq yàlla na suñu borom nangul ñu loolu te defal ñu ko ci barkeb ramadanul karim ñi ngi sant ñëpp bu baax baax di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah sant bu baax baax mbolim jamaatu ahibba yi sheikh lassane fi ci Touba ak lepp liko wër ci liggéey bu mag bi ñu xéewoon 8h ba 18h ban xëyee ba légui ñu nekk ci ci 9h ci lañ fi joggé démarré dem ci Serigne Ibrahima jëmb mi fi xam mooy yor kaddu sëriñ bi xamal ko liggéey bii nga xam te moom la ñuy def chaque année di dimbalante ci suñu biir ndax suñu boole moo ne wa tax alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wala xudwaan loolu moom moo ñu yëkkati woon ci suñu diggante suñu mbokki teel bi yi nga xam te ñu ngi ci dëkk bi te xaw gox yi xaw a maam sarantikoo saa su ne nag ñu leen di nemmiku ci jëf yu mel nii saa bu dikkee mu mel na ni ko sëriñ Cheikh Irada waxee léegi noonu rek la mbir mi demee gannaaw ba nu amee ndigalal sëriñ bi am ci ndigalal ki nga xam ne moo fi nekk te jiite mbooloo mi fii ci Touba di sëriñ Xaadim Njaay al imam mi nga xam ne moo jiite daayira bi jamaatu ahibaay si alaasan fii ci Touba commission bii nag nekk ci benn commission di commission social di sëriñ Fallou Ndiaye nekk ci bopp bi ak mbooleem ñu mu ko àndal ñëpp kon tey bi ñu xëyee niñ ko waxee 9 ba 18 h lepp lo xamni yalla dogalon na amna luñ fi dajale won bu melni ci ay walu koday di jëm ci walu dal di jëm ci walu sukkar di jëm ci walu glace ak yenen yu ci aju mom la mbokk yep dajale won tay don ko joxi mbokk talibé yoy kon yalla dogal na niñ ko bëggee won am nañ ci yaqeen bu wërne sun suñu defé nako na ndax lu baax rek lañ ci jubloon ndax jëm ji ñu koy defal mu serigne Darou mi nga xamne mom lañu la liggéeyal tey ak ëllëg daan wax ne ñëmi mo bor dama am fay kon loolee kenn ku nekk ci ñun yëg na ko bu baaxa baax kon képp koo xam ne yàlla na joxe woon ci sa benn sagar nu mel yàlla na ko sëriñ bi maanaam nangu te bu ko nangoo tam yàlla nañu ko dencal fu yàq dul egg ndax suñu gisee nii ñu koy laajee ci mbokki bi dañuy mel ne maanaam lu yomb waaye yombul ndax dem ci nit laaj ko mu yëkk ti yëkkati mbubbam moom gën a bëgg joxe ko ndax dañuy wax ne nit ki kat bu dee joxe day joxe la mu gën a bëgg lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun kon nit ki su joxe day xool la gën a bëgg maanaam mu joxe ko te yàlla rek tax waaye ki ñu koy jox moom it saa buñ ko fekkee fan ko koy joxe mbetteel lay doon ci moom su ko regee moom it ñaan googee muy ñaan ñëkk ko yut te bu tàmbalee ci moom yow mi ko jox yow mi ñëwoon teew nga joxe ko tamit ñango googa faaw mak ci yow ko lolu ñing ngi koy fàttiwaat mbokk yëpp su ëlëgé sa suñ ko dé laajar comme ni na ci ñëpp bàyyi xel bu baaxa baax sant nañ goor sant suñ mbokk soxna yi nga am te tamit ñom lañ andalon ci suba ba léegi ñu nekk ay jambar lool kel mënu leen la yëf yi bën ci duggé ba léegi lu ci ëpp ci ñom ñokay topato ñoo ci dox naaju tang bi muy manam mu sedd ak guddeeg bëccëg lépp ñu ngi dox ci bir nit ñi diko laaj membre yi membre yi di joxe ñoom ñu wut ay ay mbuss di paqueté lepp lo xam te mi mbub mu ne ak la war andal mu ñu fexé bam and kon lool alhamdullilah yalla nako serigne bi nang da waxane yalla ngeen ci daje ngeureumul serigne bi waaw yalla ngeen ci ngeureumul serigne bi kon nak yal yalla ñaan goge yalla yalla nako sun borom nangu ci barkeb waxtu wo mu ko doon waxee ak barkeb wër wi ñu nek rawti nak bis bi nak waaw kon ñu ngi sant bu baax ñëpp bàyyiwuñu kan di taxalu fa wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy